salaamaaleykum mbokk sénégalais yi maa ngi leen di nuyu seen mbokk la Medoune Diop wa Tawaasaw bil haqq di nuyu ñëpp sama gars yi ku jot sama live bi nga partagé ko bu baax yal na yàlla sàmm Ousmane Sonko ko yàlla musal information yi nag dañuy dikkal bu baax ñu am ay information yu ñu wóor di am information yu ñu leer euh, audio yi ngeen di dégg muy tas noonu gars yi di leen ko wax mbokk patriote yi euh, noonu la demee xam nga Ousmane Sonko bañ koy bëgg a jàllale. pour mu dem bi passé ñu koy jaaral ci ay yoon bëgg ko jaarale ci ay bandi mooy bi passé ni yàllaa ko musal rek mais li tax ñu bëgg ko jaarale ci bandi yi pour teg ay dil yoo xamante ni si après bu nee dañ ko rey du naan sax ay nerve affaire yooyu mais dañ naan ay bandi ay fàqamaan ñoo ko rey saraxe Ousmane Sonko ñii dañoo jóg carrément pour rey Sonko ndax ñoom seen nguur gi weere na dëgg-dëgg weere xam nañ li ñuy def bu baax a baax xam na ni li def nii dara jigatu dañ ci moo tax maa tey la ñuy def Macky Sall saraxe askan wi la jóg pour def ko dafa jóg pour yàq senegal te sénégalais yi ñëpp waruñu ànd seetaan li nga xam Macky Sall mi ngi koy def képp ku ko seetaan yaa ngi seetaan dëgg gis ngeen Macky Sall bu dof dofloo ba rey Ousmane Sonko billaahi di ngeen gis Sénégal loo leen mësta gis di ngeen gis senegal loo leen mësta gis ci senegal xam ngeen xale yi gis ngeen ni demee nii mer. ak ni ñu tojee nii mer ba toj ci ta ta lu ndaw nii rek moo xew te lii sax ndaw waaye bu dof dof loo barey Ousmane Sonko nan jàpp ni képp kun mës a rey ci Afrique waxuma la sax képp kun mës a rey sa wàll di nga ko jëlaale ci Ousmane Sonko lépp yow la koy képp bépp nitu africain buñ mës a rey képp kuy mës a xeex bu mu jaam kun mës a rey jàpp ne loolu képp ku koy seetaan nag Sénégal dafa jot ñëpp jóg dafa jot kilifa yëpp jóg dafa jot ñëpp wax ku waxut yaa ngi yaa ngi def erreur bu rëy rëy billaahi wallaahi buñ dof dof ba kil usman Sonko ku mootoo tay jii tey gars yi ku mootu sax ñu kil ko billaahi bu nu kilee Ousmane Sonko am nañ problème buñ kilee Ousmane Sonko jàpp ne Sénégal tàkk na li ma am li ma leen wax lii dong la buñ dof dofloo seen fob yi ak seen caaxaan yi de bare Ousmane Sonko mooy Sénégal Sénégal amatul jàmm loolu moom na dugg ci seen bopp yi muy kilifa yi muy ñëpp moo tax ku arrêté wul Macky Sall mi Macky sàll fi leen jëmale xamuñu Macky Sall day taal Sénégal benn famille famille Sall dong nar a taal Sénégal sénégalais yi lii bu leen ko seetaan sénégalais yi sëriñ si lii bu leen ko seetaan sénégalais yéen ñëpp jóg leen dafa jot dafa jot sëriñ si jóg dafa jot ñëpp wax yéen ñëpp ngeen ne neem dëkk bi ku toog naan coow lii bokkuma ci li ma leen di wax fii la nañ dof dof lu ba rey Ousmane Sonko gis nga buñ fi reyee Sonko mooy Sénégal tàkk na. senegal amatul jàmm ndaw ñi àndatuñu ak seen sago instant bii nii mais dina gën a pire dina gën a pire bu leen bu leen bu ñàkkee fayda na ñun sénégalais ñu ñàkk fayda ba Macky Sall nar a taal Sénégal mel ni Macky Sall dong sunu ñàkk fayda la kon lépp lu fi am kon ci kaw Macky Sall li koy kii ak responsabilité bi képp ku noppi képp ku jàpp ni mucc nga billaahi wallaahi tallaahi dama ne la Macky Sall boo dof-dofloo leen fi boo leen dof-dofloo fi xam nañ seeni pexe yi ngeen nar da ngeen bëgg a rey Sonko dafa leer naa ñi ku moytul tay jii dañ leen koy avisa rek di leen ko wax ni ku moytul tay jii ci fajar gii lañ bëgg a génne Sonko xaw ma génne nañ ko xaw ma génnee guñ ko rey ko lañ na rey rey dañoo jël ñaari français yoo xamante ni si ay tireur yoo xam ne xoolal lépp loo xam ne mi ngi xew ñoom ñi ngi koy pexe yi ngi koy nar mi ngi senn moo tax Macky Sall boo jàppee ni ngi sécurité yaa ngi ndax sa bopp te ku moytuwul fi nga ko dul foogee foofa la lay mbir mi bettee ci ñi nga àndal ci boppam boo rayoon Sonko dof dof lu ba ray Sonko foofa lay coow li tàmbalee foofa la coow li génnee di nga dugg ci lu rëy rëy guuta nga ay goo xam ne dara dootu ci génneeti di nga dugg ci lu piir Macky billaahi wallaahi sénégalais yi sama gars yi tas leen lii ngeen wax ak kilifa yi ngeen wax ak ñëpp tas leen lii képp ko am accès ci benn kilifa diine képp ko am accès ci nit booy boo ngeen jàllale ko suñu video yi ngeen wax ko lu xew ngeen xamal ko ni Macky Sall dafa nara a taal réew mi te lii dafa sérieux affaire bii nekkul lu ñu jàpp ni moo ñu ciy muccal du loolu moo ciy muccal ku nekk toog sa kër rek noppi naan affaire bi ni kiy coow li na fay gis ngeen bu rayee Sonko jàpp leen ni bokkut ak kenn kun mës a ray ci kër àdduna loolu na na leer ci seen bopp yi li fi doon am bu njëkk ci ñin daan rey muy jàll loolu nit ñi fekkul ko mais tey jii mun rayee Sonko jàpp leen ni rayuñu Sonko rek ku ci nekk jàppal ni yow sa sa doom perte nga sa doom ndax nit ñi man mi bokk naa kon man ci ci ñun ci nga xam sama waajur perte na ma ndax fi mu ma toll la fi ma toll samay moroom la ngeen def attention bu baax dafa jot nag waa Sénégal gépp nag ngeen jóg marché amela yi ñu ngi wax ak yéen yéen di nga xam bi ngeen di jaay gis ngeen Sénégal fi mu toll nii kuy toog di xëy sax tey jii tey dan naan yow da ngay foog dan naan yow da ñoo yàpp dan naan yow escroc nga ku fi kii ba nu tojate sa place wala ñu def la dara lu la ci dal yaa xam jóg leen ngeen ànd ñu ànd xeex Sénégal jóg ñun ñëpp ñu ànd ñu xeex xeex bii mu jeex benn yoon ñëpp ñëw taxaw ne kii Macky Sall mii li muy def nii dafa ëpp ku jàpp ni ku jàpp ni mucc nga képp ku toog ku seetaan escroc nga ku seetaan doo nit ku baax Sénégal fi mu toll nii ñëpp la war a jaral ñun defuñu pour ay politique politiciens yi nax nañ leen ba ba ngeen xam ni lépp lu ñu def ngeen ne kii dafa ànd ci ginnaaw kii ndax mbirum politicien la li ñuy def lu ay mbirum politicien ñun mbirum dëgg la. ñu defuñu ay politique danoo ànd ak Sonko wala ànd ak ay Pastef wala beneen affaire politique ñu suñu réew moo yàqu réew mi moo bëgg a takk réew mi leen bëgg a yàq danoo bëgg dañu bëgg dañu bëgg a taal suñu Sénégal tubaab yi la lii lépp pexem français bi la ngeen xam loolu bu baax a baax ñaari français lan la ñuy wut suñu réew pour pour di ñu rayal suñu président ñaari français lan la ñuy ñëw sunu réew pour rayal ñu Sonko lan moo lan moo waral loolu xam ngeen ne tubaab bi doon xeex démb moo nekk fii di xeex ba tey te ñun duñ ko seetaanati tubaab bi dafa doy mu ñuy rayal su ma ni la li nga ñu rayal kaacaaroy doy na dama ne la li jot a ak li ngay rey géej gi doy na dama ni leen lii duñ ko seetaan suñu bakkan lañ ciy teg suñu bakkan lañ ciy teg moo tax Sénégal toll na ci bunt bu garaaw jóg leen sénégalais yi kilifa yi jóg leen maire yi jóg leen waa kër yi yéen ñëpp génn leen seen kër yi nekkatul bisu tëdd ci kër ku ci nekk war ngaa génn boo bëggee jàmm jàmm mooy ñëpp jox ñu ne ko Macky Sall li ngay def nii ànduñu ci tey te tam duñ ko seetaan Sénégal yëpp buñ ci àndee xeex bi du mujj fenn lu dul si jàmm ak salaam mais ni ngeen di def nii ku nekk toog sa ruq ngeen foog ni dinañ saraxi Ousmane Sonko ak li mu sonn lépp Sénégal Sénégalais di ko seetaan da ngeen di seen bopp de ku ci dugg ñun dañuy jàpp ni sax yow yaay escroc bon bi ku moytul képp ku naan noppi sax yow danañ toj sa kër ku naan noppi leen dama ni la yow dinañ la boole yow ci combat moo tax yéen a seetaan lu bon a bon a bon dama ni leen kaay leen Sénégal yëpp ñu ànd xeexandoo lii Macky Sall narut jàmm yéen a ko gën a xam li lii lépp wax na leen ko yéen ñëpp dégg ngeen ko xam ngeen ko wax nañ leen ko wax nañ leen kii dina jàpp Sonko wax na leen affaire bii ni mu demee wax nañ leen dina ko sosal Sonko wax nañ leen ko mais lan ngeen ti lu leer naa ñu ni ne damay sosal kii dama koy tëj ne dama koy sosal colomotive bi Sonko wax na leen ko barki démb xam ngeen ko xam ngeen ni dina ko colomotive ne dafa créer benn kii affaire robé mi ngi ñëwaat affaire leneen tam ngi ñëwaat dugal fi ci affaire diine mi ngi ñëwaat ngeen bàyyi ci xel bu baax ba affaire terrorisme di ngeen ko fi dégg amul Sénégal amul terrorisme amul dara dina créer lu nekk tubaab bii créer terrorisme dina fi créer robel dina fi créer ay waaso dina fi lu nekk loo leen fi gis ci lu bees du dëgg lan moo fi nekk li nga xam ne mooy dëgg mooy Macky Sall saay-saay bii li fi nekk li nga xam ne mooy dëgg tubaab bi nga xam ne nekk fi ne far foos ala du génn suñ réew dina dinañu takk ay jaam tubaab bi fi nekk ne suñu dëkk duñ am jàmm duñ am hôpital yi mag duñ dund jàmm pour tubaab bi fi nekk ne suñu tubaab suñu dëkk bi ñun duñ mës moom suñu bopp di liggéey suñu dëkk ci ñun ñu ko bëggee ak lim ñu neexee lii ab xeetu noteel la boo xam ne tubaab bi not na ko ñëpp def ko ci dëkk yëpp taal dëkk bu nekk nag dëkk bii amul benn guerre jàmm la am jàmm ji nag mooy dëkk bi yëpp ay manko doo jàmm ji fi am mooy ñëpp ne woon njar xam li xew xam li xew mooy li Macky Sall di def nii dafa ëpp ngeen teg ci seen bët jàpp doomu jàmbur tëj ngeen teg ci seen bët li fi nekk ci li nga xam ne mooy lii dëgg mooy tooñ gi lépp dëkk bi bu tàkkee lépp Macky Sall lépp gouvernement bi la xale yi defuñu dara xale yi tooñuñu kenn mais duñ taxaw ñuy seetaan ñuy rey ko ñu koy seetaan duñ toog di seetaan ñu taal dëkk bi di àtte seen façon àtte yi bëgg a sosal nit far fosu bëgg jaay doole askan wi askan wi di ko seetaan dañ ñoo jaay doole ñu fépp kon boog lii ñëpp ci war a ànd xeexandoo képp ku tëdd sa kër képp koo xamante si yaa ngi toog naan da ngay xëy billaahi escro nga képp ko seetaan lii doo nit ku baax képp ku taxaw di seetaan gu nekkatuñu bisub dund bisub dee la nekk na senegal yëpp jóg ma ne leen xoolal dara amatut ñun ñëpp li war a teg drapeau Sénégal li war a teg sunu kanam mooy drapeau Sénégal. ñun lu ñu war a teg suñu kanam drapeau Sénégal kenn waratul teg sa kanam lenn lu drapeau Sénégal Sénégal moo taxaw Sénégal moo soxla nekkatul jëm nanu teg drapeau Sénégal teg leen drapeau Sénégal bu kenn gisati leen lu dul drapeau fii dara nekk fi lu dul suñu drapeau suñu réew Sénégal moo fi nekk état bi Sénégal la ñuy xeexal yéen ñëpp jóg leen sénégalais yi pour drapeau Sénégal jóg leen ngir buum jaam dog jóg leen lii Macky Sall def ëpp na li ñuy def nii senegal ëpp na ëpp na ëpp na lii fii la yam fii la bët yam dama ni leen xool lu ne fàng kenn du ko jeex lii dafa leer nañ dañu bëgg a rey Sonko te duñ ko seetaan te buñ reyee jàpp leen ni bu leen jàpp ni mukk ci am na bu nu reyee bu leen jàpp ni mukk gisagoo leen dara dëkk baa ngi tàkk waaye dama leen buñ da jàppee buñ reyee Sonko dëkk bi lay nekk nit ñi bëggatuñ dara loolu dama bëgg yi ñëpp ngeen xam ko kon ñëpp sénégalais yi jóg leen wàllu sénégalais yëpp jóg leen wàllu bu kenn xëy bu kenn liggéey tëj leen palaas yi tëj leen école yi tëj leen lépp ngeen ànd génn doo foofooy jàmm ji ñëpp bokk ci xeex bi ñëpp ànd ci amatul toog amul benn sénégalais bu war a toog cat ba cat nekkul xeexu sonko nekkul xew politique bu nu jàpp ne ma ko ñu dañuy faaj pour politique Sénégal moo soxla drapeau vert jaune rouge Sénégal moo soxla teg nañ teg Sénégal suñu kanam nañu suñu suñu askan sénégalais yi sénégalais yi jóg leen sénégalais yi jóg leen bu kenn des ànd leen ci komba bi tey bu kenn des képp ku des fii nga képp ko des képp ku toog di noppaloo nit ñi jàppal ni yaa ngi taal Sénégal loolooy taal Sénégal. xamoo leen kon luy taal Sénégal liy taal Sénégal boo leen seetaanee ba ne fat Sonko dañ ko bëgg a rey dañuy rey Sonko Ousmane ko ku moytu tey ñu rey ko tas leen ko ku moytu tey tey tey Sonko du fanaan ku moytu tey ñu rey Sonko te buñ reyee Sonko dama ni leen nit ñi dootuñu ànd teg seen sago Sénégal dina nekk doom Sénégal dina am guerre tubaab dina fi dugg prolonge ci dëkk bi génn leen ku taxaw ku taxaw doo gor ku seetaan doo gor bu benn sénégalais des lii jàmm mooy sénégalais yëpp génn def manif boo xamante ni si comme ni ko Mali defee dafa jot dafa jot ñu def ko comme ni ko Mali defee dafa jot ni ko dëkk yëpp defee sénégalais yëpp maire yi paa donte mani la lafa yi sax jóg leen bu kenn des ni ñëpp génn lii mooy jàmm bu dul lii jàmm amut bu ñëpp jógul du jàmm bu ñëpp génnul du jàmm génn leen génn leen sénégalais génn leen bu kenn des yénn marché ambulant yi yéen ñiy xëy ci place yi ku ci xëy tooñ nga sa bopp ku ci dem liggéey tooñ nga sa bopp ndax nit ñi fi ñu lay gisee la moo tax dañ leen a yërëm billaahi dañ leen a yërëm yéen la ñuy xeexal ku ci génn ba dara dal la jàppal ni même bu la dóoree dóorug de la nit ñi nekkatuñ Macky Sall li mu def du yoon. salaam sama gars yi ku dugg nga partagé ñu ngi nuyu ñëpp ku dugg nga partagé quoi ñu waxtaan ak sénégalais yi yaakaar naa instant bi sax moom nekkatuñu si jamonoy wax ko ci jamonoy jëf lañ toll wax ji ci boppam moo doy sëkk. waaw di woo tamit sama mbokk activiste yi ñoom laay waxal sax pour l'instant yi tamit maanaam euh, dañu toll ci foo xam ne jamonoy jëf la quoi yéen ñi nga ne yéen Sénégal. maanaam wax yi nga xam ne yéen ngay ñëw di ko lancé ci kaw nii maanaam ñu koy dégg loolu daf ñuy yàqal mais dajaloo leen ci koñ yi ci biir koñ yi ngeen waxtaan ak nit ñi ci koñ yi loo xam ne ci ruq lay nekk nga xam ne wax du du siw du seen du génn ndax ci jamonoy jëf la nekk de jamono joo xam moom jamonoy rayante la moom vraiment ndax yaakaar naa ni euh, gis nañ li fi xew lépp amatul secret amatul dara moo tax mbokk activiste yi yéen ñi nekk Sénégal bu dee si côté yenn façon wax yi lan lan gën a soxla ci yéen maanaam wàcc leen ci terrain bi li ngeen di wax ci kaw bu leen ko wax ci kaw ngeen wax ko ci suuf ngeen wax ko ci suuf pour gars yi mën a pratiquer pour xeex bi mën a am sens bu dee loo xam ne lu mën te ñàkk la loo xamante si boo leen ka waxee dañ leen di tardeel foofu ñun ñu ngi fii yónnee leen ñu ko ñu wax ko lii nag dama ciy profité benn profité bu gaaw sama gars yi ngeen partagé ndax ku ci nekk instant bi booy wax mën nañ la noppiloo wala dara mais ñun dañuy anticiper wax wax joo xamante ni si wax ji même buñ paree ci vidéo bi maanaam bu ñuy jàpp di dugal ñu dugg nañ ba pare pour di leen wan ni rek engagé nañ dama ni leen sama gars yi maanaam bu fekkee ay wàllum koom-koom wàllum xaalis bi ñun ñu nekk fii maanaam lan lañ wax xoolal bakkan deret dama ni leen bakkan a xaalis ak bakkan maanaam ñoo ñoo bokk ñoo tolloo ñun pare nañu pour maanaam wàllu taal ni leen ko waxee ci comme butéel yi ngeen jël ay cox def ko ci xoolal ñi nga xamante ni si rey nañ juróomi personne yoo xam ne teguñu ko fenn sama waay di yàq dëkk bi nii jël ay nervi xaw ma nu tudd nervi mooy ay bandi ñooy ay bandi bandi bandi ay bandi la ñu andil quoi ay bandi nekkul ñu ñoo ay bandi mais Macky Sall moom moo jël ay nervi ñi ñuy wax ay bandi bandi yi pour ñu toroxal suñu askan bandi yi pour ñu dóor nit ñi bandi yi pour ñu toj kër nag dañuy défendre ci suñu arme défendre ci suñu lépp gars yi dégg ngeen waxe ci biir réseaux sociaux yi ci whatsapp yi li leen gars yi di wax li ñuy wax ci suuf moo gën a tàng jër li ci kaw ndax ci jamonoy jëf lañ toll toll ñu ci jamonoy wax. noonu la demee dama ni leen sama gars yi liñ leen ko waxee rek cox yaag liñ leen ko waxee kii sa waay xoolal na tàng jër nervi yi ku ca jàkkaarloog yéen jël jaasi ku nu jam jamate leen ko. ma ni leen lépp lu leen nar a def ku nar a faat seen bakkan ci ay caaxaan rayante leen ak moom ci jamonoy rayante lan nekk. dama ne la doomu jàmbur yi ñu dagg seen loxo dama ne leen du dëgg du yoon li nga xam Sénégal ñu ngi koy seetaan dama ne la rey juróomi nit juróom-ñaari nit yéen rey teguñu ko fenn dama ne leen mooy loolu. sama gars yi fi mu toll nii lan lañ toll ci bisub ci ay jëf lañ toll laa leen wax ñun dañuy participer di wane carrément ni ñun bokk nan Macky Sall dama ni la Sénégal bu tàkkee ñun ñu nekk ci diaspora bi man Medoune Diop wata wata bi àqi te képp koo xam ne ab laay vër nga nga doon wax démb di wax tey bu fekkee sa live dëgg la présenté wul nga wane sa bopp nga dugg ci combat bi nga taqati rëpp lépp loo xam ne ku ko wax Sénégal ñu ne la ci kasa bi xoolal ñu jàllale ko ñu participer bu fekkente ni bu dee bakkan bi ni wax dëgg la bu fekkee xeex bi ñuy wax dëgg la jaral nañu ko bu dee dañ ñuy jël si baax na bu fekkee dañ ñuy rey baax na lu ñu def baax na amul problème ñun danoo danoo dee ba noppi di dox danoo pare danoo participer danoo bokk sama gars yi dama ni leen dëkk ba na boy dama ni leen kër ministre yi nga xamante ni sii ñoom ñoo jël doomu jàmbur yi jàpp toroxal leen nii dama ni leen seen gàlle yi na boy dama ne leen TFM na boy man damaa bokk ci responsable lu fa yàqu Sénégal bokk naa ci responsabilité bi man Medoune Diop wata waaso bi làqi moo tax ku may noppiloo am nga problème ndax problème bi li ma fi wax waaye jël leen sama vidéo yi ma jot a wax lépp ma ne ngeen jël ko ngeen teg ko ku bëgg a bu fu ñuy dugalee nit nan ma ci boole damaa bokk damaa pare xoolal sunu bakkan ñun lan joxe ñun senegal li fa nekk nii du dégg du yoon seetaan duñ ko seetaan ma ni la def ñoo jaral lu nekk ñun ñii sama gars yi ngeen partagé live bu baax a baax nekkuñu nag jamonoy live sax ay wax jamonoy jëf lañ toll mais live boo xamante ne si day doon loo xamante ne si day soññ nit ñi ci taal ak ci ay tojate dama ni la saa waay nañ ko def yéen ñi nga xam yéen a ci gouvernement bi ñu ngi leen koy delloowaat di la di leen ko waxaat wax nañ leen ko ay yoon ko ma da ngeen dëgër bopp jàpp ngeen ni mucc ngeen jàpp ngeen ni gaña ngeen man maa ko wax Medoune Diop Watawasaw Bil Haqqi dama ni leen. yéen seen doom yi nekk fii ñun lu nu am nañ ci lu nu leer bu demee ba ëllëg seen doom yi ñu ñaf seen nday maanaam jàppale leen ma ngeen xam ne man bokk naa ci ñi ci ñuy coow loolu seen doom yi nekk fii am leen def leen attention képp koo xam ne yaa ngi nekk Sénégal di luubal di dëngal ngeen jàpp ci combat bi tëj Ousmane Sonko dama ne leen bu ñu rayee Sonko ñun bokk nañ ci responsabilité ñi nga xam ne dañuy fay pour ñu ñaf nday seen doom yi loo leen def doomu jàmbur ñu def ko seen doom yi pour léegi ngeen bàyyi xel bu baax a baax loolu nag bu yéen waroo leen nelaw bu dee ay nit ngeen li ma leen wax nii li ma leen wax lu wér laa leen wax nag dama leen seen du ma leen tuddali tur ndax maanaam ku nara ku nar a jëf maanaam doo nekk fii di ratate di wax wax ja bu leeree rek day wane ni loolu du jëf ay sóob la moo tax dama ni leen yéen ñi nga xamante ni si yéen a ngi Sénégal jàpp ni mucc ngeen ba tëj seen gàlle yi gars yi bëgg a dem seen gàlle yi seen doom yi ñu ngi fii ci kaw bi Macky Sall daw na jël na vol trajaxe ne Sénégal dem na mais seen doom yi mi ngi fii ci kaaw bi dama ni leen seen doom yi nekk fii ñu ngi ci problème ngeen sóoraale loolu bu baax a baax a baax def leen attention def leen attention ci doomu jàmbur seen doom yi xam nañ fi ñuy fréquenté xam nañ fi ñuy kii ci yéen am na ñoo xam ne xam nañ fi ngeen di fajoo pour lii nag da ngeen ko jot ngeen bàyyi ci seen xel bu leen jàpp ni mucc ngeen da ngeen di nax seen bopp dama ne leen sama ay gars yi Sénégal ci geer lañ nekk dama ne leen ci xeex lañ nekk dañuy cooki dama ni leen ñun defuñu dara tooñuñu kenn maki Sall moo tooñ moo taal dëkk bi moo fi rey ay doomu jàmbur rey na fi juróom-ñaari nit ci su affaire soxna Adji Sarr rey na fi juróom-ñaari nit ci ay tuuma yoo xamante ni si ñi ngi jël teg ko ci deru Ousmane Sonko naan ay massage ak leneen ak leneen Sénégalais yëpp ne gi ci teg ki seen bët ngeen xam ne loolu du benn dëgg mu rey ci juróom-ñaari gone yéen fonko leen gone yéen fonkoo leen doomu aadama waaye Sénégal li leen waxoon démb rek maanaam balaa kenn xeex yow da ngay bàyyi ba mbir dal la bu la mbir darul doo xeex képp ko xeex rek dafa am lu tax nga jóg di xeex ngir loola mooy post ban lay jox mooy wala loo xamante ni si yow la dal mooy danoo nangu sa kër toj sa kër nga dama leen il faut que ñu doon benn bokk ànd di bokk li ñuy yëgandoo di bokk li ñuy métteendoo ñuy ànd xeex ànd xàccandoo dóorandoo dama ni leen ñun fii lan toll ñun yenn yi dañ koo dépassé dama leen ñun xeex bii ñun dañ cee taq rip Sénégal bu leen foog ni yéen a nekk yéen ñi fi nekk bu leen foog ni yéen a nekk ci ker ci naaj bi ñun nekk ci ker gi ñun ñii ci naaj bi lañ nekk comme yen danoo imposer suñu kanam takk ñu masque takk ñu dara wax yi ñuy wax yéen a gën a xam ni wax yi garaaw la menace bu ma jël jëmale ko man ci gouvernement bi pour lak en ku am looy wax muy sama mbokk muy sama famille mi dispiace mi dispiace tey li ñuy wax nii tey dafa doon lu garaaw ndax dama ni gars yi jël leen cox ak bitéel yi comme ni leen ko waxee xam ngeen ni ñu koy defee boo leen ko taalee day exploser dafay mel ni grenade yi gars yi yor noonu jël ay grenade di leen toroxal xam ngeen ni loolu kon benn kon bokk naa ci takk naa ci beneen bi nee naa leen seen doom yi nekk fii ci bitim réew te lu am la nag bu leen foog ne ay caaxaan dama leen ne seen doom yi nekk ci bitim réew yéen ñi nekk Sénégal foofu toog ngeen jàpp ni mucc ngeen ngeen jàpp seen doom yi opéré na ko ba xam lépp seen doom yi ñu ci bari ci yéen xam nañ seen doom yi fi ñuy jàngee xam nañ fi ñuy fréquenté xam nañ seen doom yi ndax ay jaaytaar lan xam na li nekk ci Europe bi ma ni leen ma ni leen boo leen fit rey ngeen juróom-ñaari nit dama ne leen dof dof leen ba tekki Sonko dof dof leen ba continuer sen combat bi yéen seen bakkan mi nga ci xott gerte laa leen wax am jàmm ñun pare nan ñun engagé woon ñun saraxa na suñu bopp lépp lu ma ni la xaalis bi nga xam ne si dañ koy joxe ñun pour joxe ko Sénégal pour mën a jëndit luy waa yow lu lu taal TFM pour mën a jënd loo xam ne lu taal bépp yàqkat bu nekk Sénégal képp ku ñu tooñ ñun pare nañ ñun jot na sax joxe far participer nañ kon xam ngeen kon taq nañ ci ripp kon boo leen jàppee ñenn ngeen bàyyi ñu sax yéen ay yéen ay sept ngeen yéen a loo xam ne du yoon koo leen di jàpp boole loon ci bu dee da ngeen di bu dee àtteeg rey ngeen ci comme ñoo xamante ni si ñoo taal dëkk bi ñun moom bokk nañ pare nañ leen ci boole leen ngeen di rey man mii di Ndiob Watawasaw Bil Haq sama kanam a ngi nii kon sama famille kon mi dispiace samay mbokk kon mi dispiace ba jaratul kenn di wax leer na nañ man lu ci am bokk naa ci engagement bu ci am bokk naa ci su ma jaakaaroon Macky Sall man mën naa jamate ndayam fii la ma toll ni ngeen Macky Sall doomu jaambur yi mu rey yi dana war a ñaf ndeyam kon boo xam ngeen lii engagement la ministre bi yaa ci jarul ñu may noppiloo ku ma noppiloo da ngay sonn sa bopp ndax li ma wax takk naa ci rip lu am ci combat bi ci laa loo xam ne yëgu ma ko sax maanaam ñu def ko kontaan naa ci ci bu ma ci bokkoon dama ciy bokk dañ cee tàq rip dañ cee tàq rip dañ cee tàq rip laa leen wax sama gars yi nekkatum jamonoy jamonoy wax nag ñu ngi koy sàkk ci yéen activistes yi ndax yéen wax yi da ngeen yàq xool leen canal yi ngeen wax ko wax ji day daw comme ni ngeen koy faral di defee ngeen utiliser téléphone normal yi pas comme ay téléphone whatsapp mooy téléphone yooyu yu yomb yooyu yooyu gars yi du leen mën a localiser du mën a xam lu ñu wax am na ñu koy jot a utiliser tamit ci seen biir maanaam dee leen utiliser yooyu léegi ngeen xamante ni si affaire bi coow di jib comprendre ngeen léegi ngeen xamante ni bu boobaa maanaam kenn du leen yëg comme ni ngeen koy defee rek affaire bi na doon secret nekkatul jamonoy toog ci. Facebook bi di ratatati wala dara xam ngeen benn tamit maanaam marché yi comme ni ngeen ko waxee woon rek tamit foofu la képp ku génn sama waay ci marché bi moo tooñ boppam ndax ñu toll foo xamante ni sii sa waaye jàpp rey ay say doomu askan ak ak ak yelleefu doomu aadama yi ñu kii ko Macky Sall nekk ab dictature ñu bëgg dëkk bi dox ngeen nekk di xëy nekk fii di saboté Sénégalais yi di saboté ko bi mel ni yéen a ñu gànday yéen a ñu gën bàyyi dama ne leen jóg leen ngeen ànd xeex. bu ngeen xeexul tamit maanaam ngeen toog seen biir kër bu la ñu yàqal kenn du ñu yàqal kenn du ñu téye sama gars yi na tàng jër sama gars yi na dëkk bi ma ko ñëw laa leen wax ñun yàquñu ñun dañuy defar Macky Sall moo fi indi lii lépp moo yàq dëkk bi Macky Sall moom moo taal dëkk bi Macky Sall moo yàq Sénégal li mu def nii jaaduwut li mu def nii ëpp na Macky Sall moo fi rey nit ñi Macky Sall moo jàpp nit ñi tëj Macky Sall moo nekk ci li nga xam ne moo ko neex Sénégalais yi bëccëgum dal taam ñëpp seetaan ko ku ko seetaan doo gor ku ko seetaan naafeq nga ku ko seetaan bëgguloo Sénégal ma ne nan joxe sunu bakkan ñun pare nan sunu image mi ngi nii pare nan kuy jàpp nag ñu jàpp kuy delloo nit ci Europe fii nag ñu delloo tëj leen ñu ci kaso yi lépp ñun ànd nañ ci sunu bakkan lan jox Sénégal billahi billahi kon lii kon dëgg la lii kon dëgg la wallahi amul luñ ci tiit amul ci ragal sama gars yi na vidéo yi tas na Macky Sall xam fu nit ñu toll nekkatuñ jamonoy jëf jamonoy wax jamonoy jëf lañ toll activistes yi noppi leen yéen ñi nekk senegal jaratu ko jaratu ko wax ji jaru ko affaire appliqué leen wax. appliqué leen wax xam nga jamono jamonoy jëf la tolloo nañ si jamonoy wax mu yee nit ñi muy xamal askan wi mais jamono juñ toll moom nekkatul ay jamonoy wax jamonoy jëf la dama ne la WhatsApp bi sax nga ciy wax sax dama ni sax yaa ngi yàq ndax mën nañ la déglu ut leen téléphone normal. bàyyi leen Facebook bi yéen ñu comprendre jaratu ngeen dugg ndax yéen xam ngeen lu xew ngeen koy wax ci suuf yee clan yi ci suuf ndaw ñi yëg xam li xew xam yëfi doomeraam yi nga xam ne sunu njiit bi def na ko xam yëfu bon yi nga xamante sunu njiit bi Macky def na ko pour ni ñi mën a comprendre pour sénégalais yi comprendre dañoo xamut mais ku ko seetaan doo gor lii ku ko déglu doo gor Macky Sall taal na Sénégal Macky Sall moo tooñ jàpp Sonko bëgg a teg ci nii jàpp Sonko teg lu bon ci lii jaay dictature ay xale di dee ci loo xam ne du dëgg sama gars yi bokk nañ takk nañ ci rëpp kon jarul sunu benn mbokk boo xamante ni si yaa ngi toog di ñu wax di ñu wax ay conseil sa conseil yooyu nga jël ko nga dugal ko sa tubay ak ku mënta doon nag soxla wuñ conseil kenn maanaam ku ñuy conseil sax doo gor jamono ji ñu toll nit di leen xeexal di xeex ba fii amul loole leen def ngeen seetaan di conseil ni ñi naan bu leen ko jàppale di conseil ni ñi naan bu leen taal dëkk bi te makki Sall la taal dëkk bi Sénégal mooy dëkk naa feq Sénégal du dëkkum ñaari dërëm Sénégal mooy dëkk naa feq Macky Sall taal dëkk bi Macky Sall rey fi ay nit Macky Sall dagg loxo xale boo xam ne am na fukki at ak juróom-benn ci ay aji saar coowal aji saar bi Sénégal yëpp xam ngeen ni lii du dëgg xam ngeen ni lii du yoon yéen Sénégal yëpp ngeen teg ci seen bët tey jii tey wuyu bii sax du yoon. Ousmane Sonko warul doon warul doon wuyu ji lan lay wuyu ji wuyu ji ci loo xam ñëpp xam na ni lii sos la ñëpp xam ni mën nañ ko posone ñëpp xam ni dañoo bëgg a rey Ousmane Sonko mais lii nii coow lii bu amee Sénégal yëpp seetaan képp ku ko seetaan doo gor képp kuy toog di conseil nit xamuloo dara xamuloo ñaari dërëm yow da ngay nelaw ngeen baal ma àq nag ndax jamono maanaam moo suppi ko ñoom yaay ñoom baay yii dañ ko yàgg seetaan affaire dictature dañ ko yàgg seetaan ñun doom danoo dem a dem ba xam ne nag instant bii nii maanaam lii ñun dañ ko war a xeex ñun ñoo leen ëpp xel ñun ñoo leen ëpp moyen ñun ñoo xam ñun lan lañ mën a def ba bu mu jàng dog génération boobu moo ñëw génération boobu mooy ñun te dañ koy ndamoo nag te dañ koy ndamoo nag dañ koy ndamoo dañuy ndamoo ñun ñun lii dam la si ñun lii ñun gàcceel lii ñun xoolal lu rëy la ci ñun ñu xeex ba Sénégal gore ñu ne Sénégal gore bi man mii bokk naa ci Sénégal ba muy gore ba mu ba mu jaam di dog man de bokk naa ci ñu ciy xeex jamono yooyu Ousmane Sonko la jàpp di ko tëj comme ni ñuy jàppee Mamadou Dia jamono yooyu ci ñuy xeex laa bokk jamono yooyu bokk naa ci ñu libéré Sénégal bokk naa ci ñu ci ñi nga xam ne fexe nañ ba Sénégal jug ci buumu jaam gi lii ndam la lii ndam la ci góor yàlla billahi lii ndam la bokk naa ci ñi nga xam ni wala sama sa doom toog sama baay ci guerre ba la dee ci lan la dee ci jamono yi nga xam ni ku mel ni Macky Sall benn dictateur ku raw Firawna ku mel ni Hitler makki Sall nekk senegal jàpp Sonko tëj ñuy nettali histoire bi dama ni ku ci nekk góor yàlla bu nekk war nga toog ngay xoola nga kay ndamoo barki alquranu karim lii tey dafa war a doon lu ni ndamoo lii góor yàlla yi dañ ko war a ndamoo bokk ci xeex bi takk ci lépp ne man bokk naa ci ni goreel Sénégal man bokk naa ci ñi nga xam ne affaire dictature ba mu amee Sénégal man maa fay coow li ñun ñooy fay coow li Macky Sall moo taal coow li sama gars yi takk leen ci lépp ku dugg nga partagé waaw sunu live bi live bi ci àdduna bi la jëm dafa yemut sax Sénégal sunu live bi dépassé na Sénégal ndax instant bii nii yaakaar naa ni tollootuñ ci wax euh, tolluñu si jamonoy wax si jamonoy jëf lañ toll mais ba tey affaire yi nay leer nay leer naañ affaire yi dafa war a leer pour ñëpp xam affaire yi dafa war a leer pour Sénégal yëpp xam affaire bi dafa war a leer pour àdduna bi yëpp xam dama ni leen ñun rayuñu fi kenn boobu ba léegi yéen a ngi dégg coow li li fi xew ci senegal ak affaire dictature bi fi am Macky Sall moom moo fi rey moom moo fi dagg loxo amul ñun reyuñu fi kenn dagguñu loxo kenn coow li lu muy bari bari lépp lépp lu yëngu Macky Sall moom moo ko yëngal moom ak france yi ñoom ñoo yëngal coow li ànd ceeg France te France mi ngi ci suuf nag ngeen xam ko bu baax a baax a baax ngi ci suuf jël ay pexeem ak ay mbiram di ko teg pour àdduna bi ngeen firi sama laay bi ci bépp làng ngeen pour ANCAR pour ñuy sóoraale li nga xam ne lépp luy ñëw la ba tey jii kenn rayeegu fi nit ñun ñu ànd ak Ousmane Sonko ñun sénégalais yi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko ñun ñi nekk ci ginnaaw Sénégal pour drapo verte zone rouge ñun suñ drapo la ñuy xeexal ñun suñu xeex bi xeexuñu pour ay diine pour ay religion wala benn affaire wàllug waaso amul suñu dëkk benn yéen a ngi teg seen ndëgg sërëx yéen français yi seen ndëgg sërëx bi bokk na ci Casamance li ngeen def moo tax sama gars yi benn moo na ngeen ko daw muy moo jihaat comme ñu naan ay lii buñ ko defee maanaam jihaad la moo boobu daw leen ko ndax dëgg sërëx la boo xamante ni si tubaab bi ku nu bëgg rey dëkk buñ bëgg a taal ñi ngi koy jaarale ci baat boobu ci moo boobu boo boo nee moo jihaad ñu ne ñii kon ay jihadis lañ pour ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax mbokk yi ngeen muus muus leen te bàyyi xel ci li ba leen di wax ndax dafa am yoo xamante ni sii li ñuy def benn Casamance liñ leen def ngeen bàyyi ci xel lan moo tax ñu coupé seen courant yi lan moo tax ñu teg leen fitna gi pour lan yéen fan yele ci ginnaaw dégg ngeen gaa yi wax nañ leen ko tey nag wax ci moom du du bis wax wax ci du bëri mais partagé leen live bii nii xam naa ni bii mooy sama wax ci may mujjee wax sama gaa yi ngeen partagé partage dama ni leen tolluñu ci jamonoy wax gis ngeen fi mu toll seen ndëgg sërëx yi gars yi jëm nañ ba li jënd seen i këyit Macky Sall ci ginnaaw teg leen ci baaraam ngeen bàyyi xel li ma leen wax nanu ànd ak xel nanu ànd ak maan ci sunu ma sunu combat bii di sóoraale yeneen ndëgg sërëx yi ñëw ci suuf Macky Sall bëggul réew bi mi ngi ànd ak tubaab tubaab bi mu àndal moo yàq bépp àdduna moo taal àdduna bi yëpp muy France France bokk na ci ñu gën a golowe ci àdduna bi bokk na ci ñi gën a bon ci àdduna bi kuy jàpp terrorisme dëgg-dëgg jàppal France pour ngeen bàyyi ci xel yéen bokk sénégalais yi dama ni leen affaire rebelle fan yële ci ginnaaw pour yéen sénégalais yëpp nan ànd xàccandoo na ñu ànd ci combat bi nañ ci jàpp bu ñu bëggee jàmm Sénégal bu ñu bañee Sénégal tàkk bàyyi leen xel ci li ma leen wax leen fan yële ci ginnaaw ñi ngi toog di leen wax ci affaire rebelle yéen a ngi fàttaliku ñu ne ay kayit lan trouvé ci ci lan for kayit yooyu ñu far tur Ousmane Sonko mi ngi fi ànd ak rebelle yi mais ku nu maral la Casamance te xoqatal leen lii lan lan bëgg dañoo bëgg waa Casamance riposté buñ riposté ay lu yàgg-yàgg déggatoo leen ay rebelle léegi après ñu ne ay rebelle ñoo génn rebelle yi ban génnee ci Ousmane Sonko la ñu kii commencé dal pour rey nit pour sàkket fu nu mën a jaar pour comme nit kolomatee fee Ousmane Sonko nii pour jéem a andil problème waa Casamance pour ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax affaire robeli fay na li nu def waa Casamance seen àq seen yelleef ñoom moom lañ jël kii ko coupé seeni courant def leen xoqatal leen buñ jógee mer di xeex ñu ne ay robel lañ ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax baax pour li ñuy bëgg dugal beneen bi tamit ñu ñëwaat ci leen muy ci comme côté fii mosoo leen fi dégg ay jihadis fii mosoo leen fi dégg ay taakatu bomb ci Sénégal gii pour nañu yeewu nanu muus bu nu jiital affaire sentiment bu nu jiital affaire gëm-gëm nañ jiital sunu maayen xam ni dafa am lu ñu bokk ñuy gàddu àq ak yelleefu ñëpp ku nu bëgg a nax ñu ngi bëgg a jaarale ci santiment dafa doy dafa doy ku nu bëgg a nax yaa ngi am foo féete bëgg jaar ñu fa naxe ñu fa te dëggantaan ña nga àndal gëmoo leen dëggantaan yërëmoo askan wi ñun ñëpp nañ bokk ànd yërëm sunu réew nan bokk ànd yërëm sunu Sénégal nañ bokk ndey nañ bokk baay bu ñu kenn jaaxase mbokk sénégalais li ma leen di wax ni ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax gis ngeen dama ni leen affaire terrorisme amu fi bu ngeen jékki ngeen dégg ko fi ngeen xam ne lii ay ndëgg sër la te France ñoo ko teg loolu ci la ñuy jaar pour mën ñoo nax si ñun sénégalais yi dugg fa ak doole ne Sénégal dafam am terrorisme àdduna bi yéen la ñuy waxal heure boo leen déggee terrorisme Sénégal France moo bëgg a ñëw bëgg a andiwaat ni mu def Libye ni mu def yeneen dëkk yi pour ñëw taal sunu Sénégal Sénégal jàmm la nekk li ñuy xeex xeexuñu pour ay xeexu diine. xeex bi chrétien yaa ngi xeex bi musulman yaa ngi ci xeex bi xas façon tarixa bu nekk ñu ngi fi dañuy xeex ngir buumu jaam dañuy xeex ngir justice bi nekk suñ dëkk du yoon dañuy xeex ngir doomu jàmbur yi ñuy rey nii du dëgg dañuy xeex ngir ay sàcc ñëw ñu ànd ak tubaab bi saraxeñu ñu ñëw jël suñu alalum réew ñu leen neex ñu koy def dëkk bi doon réewum dictature ñuy xeex ak président Macky Sall ñuy xeex ak borom doole yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi gendarmerie ñëw ànd ak ñoom dooleel leen pour en adduna bi bu leen indi affaire seytaane jël seen drapo seytaane googu nga xamante si yéenay taal dëkk bu ngeen taalee dëkk ba pare ngeen jël seen drapeau seytaane ngeen indi ko naan dëkk ba dafam am ay xeexu terrorisme Sénégal amul terrorisme ñun ñoo bañ ñoo lànk Sénégal amul ay robel robel yi dama ni leen seen cool yi fay na ku fi ñëw jël France bu jëlee armem ba jubal maanaam Casamance jàpp leen ni dañoo bëgg a rey Casamance yi jàpp leen ni dañoo bëgg a saraxe waa Casamance dañoo bëgg a rey waa Casamance dañoo bëgg a saraxe ñun Sénégal Macky Sall bëggul Sénégal leer na instant bii nag nekkatul jamonoy jamono yoo xam jamonoy dund la dama ne jamono la joo xam ne ñun ñëpp nañu joxe suñu bakkan ñun ñëpp nañu joxe suñu bopp ñun ñëpp nañu ànd bopp doon benn bopp bu nu kenn jaxase dama ni leen robel robel yi affaire yi déggatoo leen affaire robel Sénégal bu jógee Macky sàll la ak waa France ñoo jóg bëgguñu ñu sarexewaat bëgguñu ñu fayewaat jaare la ko ci robel France ñëw dugg ci combat bi sóoraale leen loolu bu baax a baax suuraale leen France bu baax a baax jooytu leen ko wax leen ko ci anglais wax leen ko ci français wax leen ko ci lépp ngeen avertir France ci àdduna bi ñu ngi avertir waa àdduna bi ci France Sénégal amuñu problème terrorisme Sénégal xeexuñu xeexu jihad Sénégal li di xeex dañuy xeex ay saay-saay ak France boobu ñoo ñëw dugg suñu réew ñoo ñëw fi mu toll ni àttewuñ yoon suñu réew ñoo ñëw jàpp suñuy doomu réew rey leen ñi fiy xeex xeex bi ba mu ba léegi kenn reyu ko fi benn nit déggoo leen benn yoon ñun ñi nga xam ne ñi ngi xeex ñu ne rey nañ kër rey nañ kenn Macky Sall moom moo rey Macky Sall mi France jiital moom moo rey moom moo rey te mi ngi continuer di rey moom moo dagg ay ay loxoy xale pour mu leer nañu ci bopp sénégalais yi li ngeen di wax lépp kenn reyeegu fi bakkan moo gën a foor lépp tuur benn bakkan moo moo gën toj fukki oto bakkan moo gën a seer oto fi mu toll nii Macky Sall yóbbu na ay bakkan tuur na ay bakkan Sidi Lamine waxoon na leen ko Sidi Lamine mi ngi doon yuuxu di leen wax ndekete yoo tay jii tey laay soog a comprendre sénégalais il faut ñu ñor sénégalais il faut ñu ànd ak suñu xel xeex bi fexe leen ba lii bu leen ko ci génne. fexe leen ba lii na ngeen ko boole ci combat bi fexe leen ba lii na ngeen ko sóoraale yéen yaay yi yéen baay yi yéen kilifa yi yéen ñëpp ku fi taxaw naan leen ay robel Casamance dañoo bëgg a rey yi. fun taxawee ne leen Casamance dafa am ay robel xeexu robel bi moo tàmbale ñu indi xeex bi changé ko foofu dama ni leen danoo bëgg a saraxe Casamance gis ngeen léegi-léegi am na koo xam ne ci benn kuréel la bokk moom ci boppa moom moo ñëw di saaga ka bokk ci kuréelam ndax kooku dafa ñëw ànd ak système bi ànd ak Macky Sall ndax xam na moom xam na lu xew comprend na mooy def ko ñëw bëgg ko jaarale ci tarixa kooko bañ muy Ibou Fall ñu ngi rafetlu sa live kontaan ci bi nga def démb Ibou Fall Baye Fall li tax mu def loolu xam na ko xam na lu mu leen wax bu baax a baax fi mu toll nii ñii fépp lañ dugg dugg nañ fépp joxe seen moo moonin dugg nañ fépp bëgg a saraxe askan wi ànd ak ay nit ñu gëmul dara nit ñoo xam ne même sëriñ si ñuy wax sax gëmuñu leen danoo nekk fii di fawee askan wi ñu bëgg dugg ci système bi bëgg ñoo nax sénégalais bu ñu kenn nax nañu bokk nday nañu bokk baay bu ñu kenn jaxase ñi ngi sàkku ndimbal ci àdduna bi yëpp ñi ngi sàkku ndimbal ci américains yi ñi ngi sàkku ndimbal ci ñëpp Sénégal amuñu problème mu Sénégal joolaa yeeg tukulóori ay kan lañ Sénégal amuñu problème mu tariixa Sénégal amuñu problème boo xamante ni si ay problème la comme yi nga xamante ni muy Casamance robel yi robel yi kenn déggatu ko buñ fi déggee robel ay ndëgg sërëx la buñ fi déggee terrorisme ay ndëgg sërëx la mosoo ko fi dégg ngeen dem ba dëkk bi terrorisme mooy Macky Sall moom moo fi ray ay nit terrorisme mooy reykatu nit dama ni leen mooy Macky Sall Macky Sall moo fi rey nit Macky Sall moo ñëw jàpp suba ñëw jàpp Ousmane Sonko ci la amul benn luwaa ñëw jàpp ko tëj ko dëkk bii moo amut yoon suñu dëkk li àtte du yoon Ousmane Sonko mi nu jàpp du yoon boole ko dem fajaru ndar kàmb loo xam ne yow ñu ne heure ten lan la war a kii yu heure ba jot ñëw fekk ko dem ñëw jël ko yóbbu ko xamuñu Ousmane Sonko fu mu nekk bëgg koo sànq ba pare bëgg a nax àdduna bëgg ñoo nax di ñu fowee di ñu indi tegal yeneen Macky Sall dama ni la li mu indi nii dafa doy sëkk lii nii Sénégal bu nu xeexul tey jii dootuñu xeexati ba mukk ba abadan lii dafa jot joxe sunu bakkan lii dafa jot ñun ñëpp ñu dee benn yoon lii dafa jot lii kenn du ko seetaan lii buñ ko seetaanee dinañ gën a torox lii buñ ko seetaanee dina gën a dee te képp ko ci noppi yaa ngi noppi ci loo xam ne lu garaaw la sama gars yi ngeen partagé bu baax a baax a baax dama ne leen àdduna bii la ñuy waxal wax leen ko yéen ñi dégg anglais live leen ko ci anglais yéen ñi dégg bépp lang lang leen live leen ko ci langue bépp li ma leen di wax nii Casamance ay rebelle nekkuñu fa. affaire robel yi fay na coowal robel yi fay na bu robel amee robel yi mooy Macky moom mooy robel moom moo indi ay robelam indi ay kiiwam ngir indi France moom jaamu France la te France li mu bëgg mooy takk ñu jaam mooy noteel bi France xam na dafay ñàkk te loolu jaral na ko bakkanam ndax France ñun lay dundee France deretu Afrique lay dundee France daf ñoo not France daf ñoo takk ay jaam France lépp lu mu am ci ñun la koy jëlee te moo ñu ëpp doole adduna bi pour ngeen atte maanu ngir yàlla adduna bi pour ngeen dimbali askan gi yàlla terrorisme France la bu fekkee sunu diine gii l'islam diine jàmm la woote wut ay affaire wu ay war a dara yonent bi salaasam dafa ne boo gisee ab ab doj ab ab pont buy jamaate ci mbedd dindil ku lay dindiloo pont ci mbedd du la placé looy bomb dafa ne dafa ne jëw baaxul nga kay wax nit jëw nga wax ko nit mooy nga wax nit loo xam ni nekku fa nga wax ko lu ñaaw ku lay teree wax ju ñaaw kooku du la digal placé bomb li xasaw lu bon lépp yéen ko yor yéen système àdduna bi yéen ñu yor seen drapeau seytaane yi toroxal àdduna bi toroxal africain yi toroxal ñëpp ñun der bu ñuul ñun africain yi bu nu amoon jom dootuñu déglootu ñii ñun africain bu ñu amoon jom dootuñu ànd teg système bi ndax gis ngeen ay pikiir la ñu bëgg a gis ngeen dañ ñoo bëgg a wàññi gis ngeen dañ ñoo ñee suñuy ndaw gis ngeen suñuy matière première la jël di ko tibb gis ngeen ñun bu buñ bëggee dugg seen réew ñun euh, ay visa la ñuy ut ñuy sàcc sunu alal teg ci bis bu nekk ñu ñëw sàcc suñuy alal ñun mënuñoo dugg seen réew si jàmm ak salaam nu lay neex duggee suñu réew xam ngeen ni àdduna bi maanu amu fi mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam nañu am fulla nañu am fayda nanu jooytu tamit ci àdduna bi pour ANCAR pour bu yii bu fi duggee li tax ñi koy wax xam nañ ko pour buñ fi dugalee xeexu waaso du dëgg buñ fi dugalee ay xeesu ay xeex yoo xamante ni si maanaam naan xeexu tarixa tarixa du dëgg dama ne la buñ fi dugalee ay xeex boo xam ne naan ay rebelle du dëgg ay terrorisme du dëgg mosoo leen ko fi dégg ay ndëgg sërëx la yoo xam Macky Sall dina ko fi dugal booy ba ngeen def ci attention bu baax a baax a baax mbokk sénégalais buñ ko nangu waaw sama gars yi ku dugg nga partagé dafa am xibaar yu ñuy dikkal yu am solo maanaam ginnaaw ñun instant bii nii maanaam dañoo jog pour jëlee fi France ak euh, maanaam ni mu demee nii pour jëf ji ñuy jëf jëf ji ëpp solo bu nuy bu ñuy toj wala ñuy def dara yi ñu toj loo xam ne amaloon njariñ mooy lépp loo xam ne rek français yi ñoo ko moom. Euh, pour euh, Fass Boye zircon bi ñu fay jëlee gis ngeen sunu zircon bi ni mu demee tubaab bi ñu ngi koy jël mënuñ ci ñaari salaamaaleykum. waaw bis bu nekk ñuy tibb euh, foofu Fass Boye di fa tibb ay zircon di ko yóbbu poor bu dakaar pour ñuy wax euh, mbokk sénégalais yi bu leen fàtte maanaam fi train bi di jaar ci raay bi muy Fass booy ngeen dagg ko ay dagg-daggee pour train bi ngeen yàq ko yàq boo xam ne pour train bi sunu zircon bi muy tibb gisuñu suñu bopp di ko yóbbu bis bu nekk di ko jaarale port gisuñu ci suñu bopp mooy sunu zircon bii ñu koy jooy léegi pour sama gars yi ngeen bàyyi ci xel ngeen dagg ko mooy tiwaawoon maanaam ngeen zone tiwaawoon bi ngeen dagg zone boobu def ko ay dagg-daggee ku ci nekk gox ba nga nekk rek fu train bi di jaar pour di tibb zircon bi bis bu nekk nag lañ koy tibb bis bu nekk France ñi ngi tibb suñu zircon bi di ko jaarale ci pooru Sénégal bis bu nekk waaw ñu ngi koy jëlee Fass Boye Fass Boye ña fa nekk ci zone boobu nan dagg-daggee kii yi nañ ko dagg-daggee pour train yi fi muy jaar bi fu mu mënta jaar muy ba tiwaawoon ba fépp fi train bi di jaar booy yi daggate leen daggate leen yoon bi dagg leen yoon bi ngeen yàq ko ndax sunu zircon la ñu ngi koy jël di ko jël ci doole di ko jël ci force doole mbaam te ñun gisuñu ci suñu bopp suñu zircon bi nga xam ne ngi koy jël bu leen ko fàttee loolu partagé leen live bi bu baax a baax a baax ngeen bañ koo fàtte yàq bi na am solo pas comme yàq mais suñu zircon bii ñoo xam ñu ngi koy jël ñun ñoo ko moom zircon bi suñu zircon la quoi ñu ñoo ko moom ñu ngi koy jël te ñun tàgguwuñ di ko jël ci ci doole mbaam zircon bi nañ ko xeex bi nga xamante ni si mi ngi jaar ci kii yi mi ngi ñi ngi koy jëlee Fass Boye fa leen koy jëlee bis bu nekk waa faas booyi ñoom ñoo ñu ko xamal mu metti leen metti seen xol gisuñu ci seen bopp seen hôpital yi matul ñi ngi am problème mu lekk xiif mar France bis nekk mu ñëw jàpp suñu zircon bi tibb nii di yóbbu bis bu nekk mi ngi jaar ci port bi di dem. bu leen ko fàtte sama gars yi bu leen ko fàtte dagg leen dagg leen raay yi dagg ko daggate daggate saboté yoo xamante ni kenn du ko mën a réparé waat kenn du ko mën a defaraat balaa ñu koy defar fekk Macky Sall dem yoonam Macky Sall mii na fi jog dafa jot Macky Sall dem yoonam dafa jot Macky Sall sama gars yi bu leen ko fàtte partagé leen partagé leen live bi bu leen ko fàtte daggate leen ko daggate leen ko ay daggit ku ci nekk fa nga nekk xeex yomb na bii moom bu am solo la lii nii lu am bu am solo la zircon bi zircon bi ni muy demee du yoon pourquoi ñi koy tibb te ñoom ñëpp am problème am problème mu lekk am problème mu naan gisuñu ci suñu bopp France di ko jël ñu koy jaarale ci raay bi di ko yóbbu ba aéroport di ko yóbbu port buñ ko yóbbu poor def ci bateau yi yóbbu France France ñëw lekk xam nga lii bokk na sax ci lu gën a am solo sax osan yi ngeen di kii noonu dama ni leen dagg leen zircon bi pour bu mu fa jaarati loo leen ci mën dagg raay moom mën nañ ko dagg raay pour dagg raay bi nii ba terrain yi dootuñ fa jaarati di yóbbu suñu zircon bi yomb na fu waay nekkee dama ne leen yéen waa Tivaouane ñi nekk Tivaouane dama ne leen daggata leen raay bi ay ngeen dem ngeen dagg ko dagg ba ay day sore kii dagg fii kii dagg fële ñeneen fépp fu fépp fu train bi yóbbu zircon bi jaar rek daggate leen ko sama gars yi ngeen partagé laay bu baax salaamaaleykum mbokk sénégalais yi euh, ñu di leen bàyyiloo xel gis ngeen sunu combat bii nga xamante ni si engagé nañ ko ba noppi jëf dafay mat na mat gis ngeen bu ngeen dof-dofloo ba Macky Sall ngeen may ko fu mu yàqee nakam xeex bi occasion bii ngeen am ni exploité wu leen ko yàlla wallahi di ngeen ko réccu seen courant yi dina seer di ngeen ko fay farfos seen ndox yi dina seer di ngeen ko fay farfos dinañ leen toroxal yéen sénégalais yi France dina dugg ci dëkk bi indi fi ay arméem France dina gën a dëgëral Sénégal gën a dooleel Macky Sall loolu sénégalais yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel combat bi na jëf ji mat dama ni leen buñ dof dofloo ba tendeefal buñ dof dofloo ba wàññi sunu combat bi nga xam ñu ngi koy combat wallahi bañoon a xeex da koy gën pour loolu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax dama ni leen jëf mënta gën a ñaaw jëf ji nga xam ne Macky Sall def na ko. moo tax combat bi dama ne leen jëf dafay mat seen seen lépp lu ñu yoroon seen i bal nee may dama ne leen seen grenade yi maa leen may ay fan yi néew dootoo leen gisati seen grenade yu ñuy taal. bi ëpp ñu leen doole sénégalais yi kenn ëpp leen doole dama leen leen dëgg ngeen di xeex dama ni leen li ñuy faayit ñun dëgg la fii leen mën a jaar buum ak jaam waxuma leen dara mais France Macky Sall ci bopp abal ñu fii. combat bi nekkul dama ni leen du ay combat Sonko pour mu leer naa ñi ci bopp sénégalais yi ñun danoo maar ci dund bi ñun danoo maar ci notel bi ñun danoo maar ay ati at ñu ni nax di ñu takk jaam ba jamono ji dama ne leen jóg nañ jëf dafay mat bu kenn dellu ginnaaw bu kenn ragal bu kenn tiit buñ delloo ginnaaw mooy suñ toroxtaange waxtu wuñ delloo ginnaaw nanu jàpp ni ñun Sénégal mooy suñ toroxtaange billahi wallahi France buumam begg na bëggul mu dog France li muy am Sénégal buggul mu dog mbir mi du affaire Macky Sall affaire de France la gis ngeen bu nu dof-dof ba may leen fu nu yàqee seen naq laa leen wax France dina ñëw noteel ñu not boo xamante ni si notu buum ak jaam goo xamante ni si bu gën a doy waar yi fi amoon lay am bu gën a doy waar li fi amoon jamonoy maam lay am loolu ñun mbokk Sénégal yëpp ñu bàyyi ci xel dama ni leen jëf ji na mat dama ni leen xeex bii na mat dama ni leen na nu xeex sunu jàmm benn yoon wala ñu gën a dee loolu moom bàyyi leen ci xel tànn leen ngeen gën a dee ñu takk leen noteel di leen imposer loo xam ne ci seen dëkk ngeen nekk fa ay immigré te sax ay immigré la suñu dëkk ñu leen di imposer loo xamante ni si doo leen ko mën a fay doo leen ci mën ñaari salaamaaleykum ku wax danañ la jàpp tëj la affaire dictature bi gën a métti liñ leen ko waxee woon keroog dama ne leen Macky Sall li mu doxalee nii mooy li nga xam ne mooy am ci àll bi te àll bi nag dana gën a yées bu boobaa ndax dundu mala lay dund ak ñun Macky Sall defuñu ay nit daf ñu def ay mala comme ay mala lu la neex def ci réew mi ku la neex jàpp lu la neex def am fi xeetu doole gi te lépp lu mu def dama ni leen peccum ndiir bu neexee nday yaatee ca mbagg la Macky Sall mi dañ koo dee Macky Sall mi France moo ko samp Macky Sall mi système bi moo ko samp Macky Sall mi doole kase la fi mu toll nii nag doole ji mu am yëpp yàlla moo ko ëpp doole askan wi bu nu àndee ñun ñëpp ñu bennoo doon wennuk say kase moo ñu ci mën a génn te buñ ko defee dañ ciy génn incha allah ëpp ñu doole. ñun li ñuy mën a may doole mooy bennoo gii buñ ko fàtte sama gars yi dama leen xeex bii combat bii bu ñu daw res bu ñu daw ginnaaw nañu joxe sunu bakkan nu joxe sunu lépp pour sauver askan wi dama leen Sénégal moo toll foo xam ne ñi dee yàlla na leen yàlla yërëm yàlla na leen yàlla xaare àjjana yàlla na leen yàlla defal àjjana doon seen dëkkuwaay mais dama ni danoo toll foo xamante ni pour Sénégal jak il faut que am ñu taxaw sacrifier seen bopp il faut que am ndaw yu taxaw saraxe seen bopp moo gën ñuy saraxe suñu bopp ci géej gi moo gën ñuy saraxe suñu bopp dama ni leen dee benn yoon la da ngay dund mbaa nga dee fu nekk la nit mën a jaar dee tëdd kaw lal dee dama ni la koo xam ne dara jotu ko mu dee dama ni leen nan xeexal sunu askan nanu xeex pour liberté nanu xeex pour buuma jaam bu ñu dellu ginnaaw bu nu tiit bu nu yox yoxi bu nu demee ba yok yoxi jàpp leen ni mooy sunu defet bi gën a métti ci sunu defet ngeen bàyyi ci xel Macky Sall mi ku sokor la ku bon la instant yi nii ñun dem nañ bay bëgg a dama ni leen nañu continuer suñ combat billahi buñ dof dof loo ba yendeefal ñu dof dof la ba nooyal ba makki Sall am fi doole ba makki Sall ñëw bëgg lim fi bëgg nii ba tubaab bi ñëw dugg fi am fi doole yàlla xam na ni sunu combat bi dañ koy perte loolu nañ ko sóoraale instant bii ñun ñoo am ndam instant bii ñun ñoo jekku instant bii bu ñu imposé ñoom programme wu doon lii ndax dañ doon wax ne sénégalais ay xar lañ sénégalais ay tapet lañ sénégalais yi duñ génn xeex tey jii tey nag génn xeex moo jot tay jii nag affaire bi dafa jot lii daf leen a bett te lu leen bett mën leen seeni programme seeni système yi ñu tegoon lépp daf leen a bett ñoom foogoon nañ ni lii dañ ciy génn génn gu nooy Macky Sall def na ci lu nekk génn ci Macky Sall ban ko waree topp Macky Sall bañ waree dal ci kawam yàgg na mais lii xalaatu ko woon xam ngeen ni dafa naagu ba jàppoon lii mais bu doon lu pare lu mu programme du demee nii dina gën a métti ci ñun instant bii amuñu buntu ñoom amuñu fu mën a jaar. dama ni leen sama gaay yi xeex bii nañu gën a engagé pour yërëm sunu bopp pour ëllëg ndax tapet gis ngeen tapet boo ko demee ba jekk ko sama waay kii ko mais gis ngeen boo leen dof-dof la ba mu jekku leen ba renforcer rankiñee la Macky Sall ko soxor la ko bon la mi ngi nii rey ay doomu askanam ci lu dul dëgg ñaata nit fi mu toll ñoo dee ci lu dul dëgg ci lan ci lii ne far force dafay jàpp Sonko xam ngeen ni kii nangu parewul pour bàyyi réew mi kii réew mi bakkanam la ci teg pour lan pas ay bakkanam pour dundu li leen wax démb dama ni leen moom Macky Sall pour dund la bëgg pour ay bain am ma ni leen doomam bi ngeen xool fan lay jëlee oto yi muy jaay ay Ferrari Sénégal fan la jëlee alal bi doomam nekk fii ci donkaas gi di dem ay Dubaay di indi ay oto di jaay fii ñun sunu doom yi di diyee ci xiif ak mar moom famille Sall moom dong mu ñëw am doole ci dëkk bi ay doomam nekk si jàmm mu bëgg a teg ñun baadoole yi jël sunu alal réew ko séddoo ko tubaab bi ñun lii duñ ko nangu. sama gars yi bu ñu daw sama gars yi bu ñu yox yoxi ñu leen di joxaale message bii pour ngeen bàcc xel bu baax a baax a baax a baax sama gars yi jëf dafay mat dama ni leen kii bi nga xamante ni si zircon bi bi leen doon wax sànq bi nga xamante si ñi ngi koy tibb bi ñu ngi koy tibb maanaam ñu fexe ci zircon boobu ci boppam dagg leen raay yi ma ne leen yu li dalee tiwaawoon ba ci kii fépp foo xam ni terrain bi mi ngi fay jaar bis bu nekk di jël sunu zircon bi di ko yóbbu port sunu zircon bu ko yóbbee port ñu dem yóbbu ko France ñun gisuñu ci sunu bopp sàcc la France di ko sàcc di ko yóbbu daggate leen raay bi laa leen wax raay bi xool leen fépp fu muy jaar di yóbbu zircon bi ci Sénégal yéen xam ngeen ko dama ni leen ngeen dagg raay bi te bu mu ànd ak ay wax na ànd ak loo xam ne petoo leen lii message la moom dañ koy jàllale pour ngeen mën a petoo seen biir ngeen xool nan ngeen koy organiser organiser leen ko dama ni leen ngeen dagg yi dama ni leen raay bi nga xam ne zircon bi fa lay jaar bis bu nekk di ñëw di dem port ñu koy tibb ñu ngi toog bis bu nekk di yooyu naan zircon bi zircon bi zircon bi dama ni leen bu leen ko fàtte dama ni leen daggate leen raay bi fu muy jaar dagg leen ko France na ko yëg na metti lool ci France mu xam ne ñun comprendre nañ France nañu dégg na comprendre na xam ne ñun comprendre tey osan yi dama ni leen lee moo ëpp solo osan mooy affaire raay bi fi nga xamante ni foofu lay jaar. bi nga xam ne ñu ngi tibb suñu zircon di ko yóbbu dama ni loolu bu leen ko fàtte mbokk sénégalais yi gisuñu ci suñu bopp dagg leen raay bi dagg leen ko koo xam ne fépp fu raay bi di jaar fépp foo xam ne train bi mi ngi fay jaar ngeen dagg raay bi dagg ko ay dagg-dagg yu sore yoo xam ne duñ ko mën a réparer balaa ñu ko réparer fekk Macky Sall mi jog fi Macky Sall li fi jot mooy Macky Sall na dem yoonam Macky Sall na dem yoonam Macky Sall bu demut yoonam. bun profité wul fii mu dem yoonam yàlla xam na ni bu toogaatee ci réew mi ba dugg ci réew mi ba indil leen tubaab bi di ngeen ko rëcc yéen sénégalais yi li ma xam naa ko. bu nu dof dofloo ba Macky Sall may ko naq gu mu yàkkaat fii wàccaat Sénégal moom Macky Sall ba newaat Macky Sall mooy nekkaat président Sénégal fi mu toll nii xeexuñu xeex bi benn yoon ci mooy suñu torox tànge ba faw xam ngeen ni ab baadoo la moo leen jiite ku bëggul réewam moo leen jiite jaay doole gu leer naññi gi mu def nii xam ngeen ni kii dara safu ko Macky Sall jël leen takk leen ay seen yóbbuwaat leen comme ni doon jàppee jamonoy maam ay jaam loolu saful Macky Sall ndax lii wane na ko carrément jàpp Ousmane Sonko mii tëj ko ci njaayum doole boo xam ne leer naññ waxatuma Sonko nañ bàyyi Sonko bakkan moo foor ñaata bakkan ñoo tuuru ndax patriote yi ñoo tuur ay bakkan ndax nit ñu toog ne dañoo bëgg seen réew ñoom ñoo ray nit Macky Sall moo rey nit Macky Sall moo rey xale yooyu lépp responsabilité Macky Sall ku fi dee Macky Sall la xale yi ñu dagg seen loxo Macky Sall la. lépp moom la armée bu ñàkk jom ànd ak ñii ñëw di toroxal seen askan nii sama gars yi seen ñii dama ni leen seen dara matut Sénégal lu dul tappaleeg ak làmmiñ gu rëy nekkul si ñoom seen dara matut armée bii ngeen yaakaar yi di leen tiit seen ñaari salaamaaleykum matut ngeen baay ci xel seen grenade yi dana jeex seen kii yen yor ay liif la ñuy yor après seen bali pisala sax day jeex ndax dëkk la boo xam ni armée français moom bu ci duggee moom ñu wax ak ñoom armee français dañ ne leen ngeen yam nekkoo leen ci réew mi ñi dégg français dégg lépp dama ne leen commencé leen ngeen def ay débat intellectuel dafa jot ak xeex bi lu mu tàng tàng tàng ak sénégalais fu ñu toll toll def leen débat yoo xam ne pour affaire terrorisme bu leen ko fàtte pour affaire rebelle Casamance bu leen ko fàtte pour affaire waaso ak waaso commencé leen def débat yooyu commencé leen dugg ci débat yooyu yéen borom xam-xam yi yéen ñi nga xam ne dégg ngeen langue yëpp xam adduna bi ni muy tëddee commencé leen débat intellectuel yooyu yoo xam ne directement. ñan ngeen di waxal mooy ñi nga xam ne ñoo yor drapeau saytaane ci àdduna bi di taal àdduna bi jaxase réew ba ñu xeex di tojantey bopp ñu ñëw tibb pétrole bi dafa bokk ci système France dafa bokk ci arme France arme France bokk na ci jiiñ ñi terrorisme France la arme France bokk na ci ci fexe ba indi ay affaire waaso ci biir dëkk après nag ñëw nag ne day atte ate boobu muy atte attewul atte ñaar dërëm moo ko créé pour sàcc sunu pétrole nii la taalee bépp dëkk indi fa coow loo xam du mës fay moo tax commencé leen sàkku leen ndimbal ci àdduna bi yéen intellectuels yi ak lu ñuy xeex xeex xeex leen ndimbal ci àdduna bi ngeen xam ne suñu dëkk jàmm am pour li dal Mali bëgguñu mu am fi li dal yeneen dëkk yëpp bépp dëkk boo xam ñu ngi leen di toroxal indi fa ay xeexu waaso indi fa ay xeexu terrorisme indi fa xeexu leneen ñu xamal leen ni amul suñu dëkk bii Sénégal kenn déggu ko fi amu fi Sénégal dëkk jàmm ñu bokk nday bokk baay ñu naan réewum teranga Macky Sall mii mooy baadoola mooy golo mooy xaj moom mooy baadoola ab baadoola moo ñëw jiite ñu ci jiite boo xam ni saa mu nax askanam sax pour takk leen jaam sax ci France waaye def ko dafa ñëw di jaay nit ñi force di jaay nit ñi doole bëgg ñu takk takku jaam boo xam ne takku jaam ak dof la boo xam ba nit ñi yëg ko dem ba sentir ni kii dafa yabaate nit ñi jóg di riposte pour mu leer nañ ñi sama gars yi wax leen yéen intellectuels yi wax leen bu leen noppi. dugg leen ci débat intellectuel pour intellectuel yi nga xamante ni si ñoo nekk ci àdduna bi wër àdduna bi di ci taal àdduna bi dëkk bu demee ba toll fii ñu dugg fa porox ndoll fa buñ fa porox ndollee ñëw indi fa ay problème ay religion wala ay problème mu waaso wala problème ay rebel ak amuñu rebel amuñu ay ay terrorisme fii xeex bi ñuy xeex mu leer nañ mooy lii Macky Sall reykatu nit la mooy terrorisme bi dafa rey juróom-ñaari xale jàpp Ousmane Sonko ci doole bëgg ko tëj jàppoon fi Khalifa Sall tëj jàpp Karim Wade tëj doon ab dictateur sunu ndox bi seer sunu courant bi seer sàcc petrol sunu richesse yëpp jox tubaab mu leer nañi amaloon benn njariñ askan wi ñun lii la ñuy xeex dañuy xeex pour buumu jaam gi ndog dañuy xeex pour sunu réew Sénégal dara amu fi ku fi bëgg a andi seen yooyu yi am ci yeneen dëkk ci àdduna bi yi nga xam ne noonu lañ taale àdduna bi ñun dun ka nangu dañ koy bañ salaamaaleykum.